baatu procès turu Adji ak turu Ousmane Sonko saf nañu sàpp ci ni kay ñu xëyndal bokk ci ñoom l'observateur mi ñu wax ne tuumay viol ji Adji teg ci dereb Ousmane Sonko bi tey ji ca lay leer sour de vérité bi tey la justice bi woolu na la ñaar muy Adji di Ousmane Sonko ca kanamu chambre criminelle ngir ñu dem leeral fa coow li bu dee kii di Adji dana dem tribunal Ousmane Sonko moom awagul yoonu wuj waaye ak lu ci mën di am l'Obs ne nañu dégg nañu a kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon fukki nit ak juróomi justice bi wooloo ne ay témoin ci coow li l'observateur mi ngi ñuy wax ñan ak ñan la Sidi Ahmed Mbaye la docteur Alfousseyni Gaye gynécologue bi Aïssata Ba Salawad Mamadou Mamour Diallo Aminata Ba Elisabeth Delphine Gomis Mamadou Fall capitaine Oumar Touré Ababacar MC Niass Ndeye Fatou Sène Ibrahima Koulibaly Ndeye Rokhaya Fall Fally Kébé ak Seynabou Ngom di di ab procès la ne lu ne mën

bu tolloon ci fukkeet ak ñaar bu faatu ca mbaaw li faatu démb ci réew mi ci manifesté yi journal bi nee nañu ëpp nañu ñaari nit ñetti doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci manifesté yi amoon ci réew mi ndax massage Adji Sarr beeg Ousmane Sonko bi këriñ luy boy ba xonko cooy journal Le Témoin gis na ne suñu réew di Sénégal ca la toog jamono ji te yëf yi mi ngi bëgg a jéggi dayo ndax dund nañu démb fitna ju réy ci Sigicoor ci Ndakaaru ak yeneen i diwaan Yoor am na it beneen manifestant bu faatu ci kër Mbay Fall libération bi ne am na ñetti bakkan yu rot démb ci Ndakaaru ak ci Sigicoor sursaa nañu mbir yi tàmbali naa jaxasoo Ousmane Sonko mi waral coow leeg mbambuli ma lëlu ca këram ci Sigicoor leader yu yeewi askan wi demoon Sigicoor ne dañu koy jàppale sursaa mi ngi ñuy xamal ñoom it fa ñu leen logé dañu koy nëbb Abdoul Mbaye ci waxtaan yu mu xëy def ak waa sursaa ma nga fay ne ne ci te tëddee njaaxaanaay société civile gi ci réew mi ak ni ñu taxawee ci ci coowal Adji ak Ousmane Sonko li le témoigné nañu jeunes yu COJER yi ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax ak par parloo la ci gis Moussa Sow coordonnateur bu COJER moom ak jeunes yi mu bokkal COJER nee nañu ci journal le témoigné ne gis nañu ne société civile bi ci réew mi tëddeewul njaaxaanaay ndax Ousmane Sonko mënu fee nekk def li muy def def fi lu ne weng yoon woolu ko mook